digam waxam jëfam doon na loo xam ne lii lu am doole la gannaaw ba mu leen dégloo ba pare Yeesu la mu leen tontu moo di est ñaaka sago yéen ñi yii a gom la yonent yëpp a doon wax xanaa Krista bi waroon a jaar ci coono gannaaw si loolu mu dekkale ko noona téere bi wax ñu ne Yeesu di nettali ñaari taalibe yi le lépp lu jëmoon ci téere bi ci téere yonent ya di yëgle naka la yàlla feeñalee ne Krista na jaar ci coono waaye gannaaw ñetti fan mu dekkale ci yoon wañu doon nekk dem nañu bay jegeñ dëkk ba ñu ñaan Yeesu ne ko mu toog ak ñoom ba mu defee ñoom ci seen kër leena la def mu jël mbuuru barkel ko damat ko ne am leen mu jox leen ko ba ko taalibe yi nangoo seen bët ubbeeku mbokk yi kàddu gu mel nii dafa neex lool boo déggee saa yu nekk ci téere bu sell bi ñu naan seen bët ubbeeku na mu doon loo xam ne lii kawteefu yàlla moo feeñ am nañu bët ñu ngee gis gumba wuñu waaye téere bi dafa santaane ne seen bot ubbeeku na maanaam ñu ngi gis a ngis te goo xam ne gi yemul rek ci bot yu neen seen boot ubbeeku na mën nañoo gis mën nañoo ràññee mën nañoo xam kawteefu yàlla ci seen biir ndegeem gis nañu Krista bi deekaleku te Krista bi deekaleku gën na leen di feeñal lu óor wax leen ne waaw naam man mi maa di christian gannaaw ba ñu ko gisee ñu dégg ci moom ñoom waaru nañu ndegem Krista bi génn e na seen biir te gisatuñu ko ñu dellu dëkk ba di feeñal fa taalibe yi lan lañu ñu dajoon lan la ñu gis lan la ñu xam ci yéene gi nga xam ne moom am Krista bi leen feeñul di leen yëgal noonu it am taalibe wax leen ne dëgga moo feeñu nañu newoon na fii feeñu na fiyeer feeñu na yeneen afootar yi seen baana doon benn ngir ne ñoom ñeppa am nañ lu seede ne Krista bi dekkaleku ay feero yi ay daara yi buras samaan borom dam ga ay laade kii caade yam ga Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Dégamos mbokk yi téere bi ci jamono ji ñu nekk ni la mu ngi feeñal lu óor ka dee woon nekkaatu fa benn ci kaadu yi nga xam ne moom lañ musa dégga sa musee la dee ci kaddu yi nga xam ne moo jëmle ci mbiru dekkaleku ga ba jigéen yi la ñëwoon ca biir tool ba ñu gis Yeesu jaawaatle ko ak borom tool ba la mu wax moo di ne loo di def di ut ki di dunda ca dëkki ña dee waaye seek for the living among the dead mooy mbokk yi jamono ju ñu nekk nii jamono ñoo seede dekaleku borom bi la te deekaleku borom bi li mu tekki moo dina ñun gannaaw ba yeesu feeñalee ndamu yàlla ci deekale koom mel na ne ñun itam am nañ geneen anam goo xam ne gii moo di dunda dundagu ees bi ñoo dundee mu di dundi deekaleku ga nit ñiy dundee deekaleku ga mooy ñi nga xam ne ñu ngi amee bànneex ci seen biir seen kanam di ko feeñal seen jëf di ko wone seen wax di ko wone ñooña alléluia mooy seen woy alléluia mooy lan bànneexu leen ñooña itam seen jëf dafa war a soppeeku léegi Paul mu sell wax na ko ci kaddu ne dégg nga bu fekkee ne Christ bi dekkalekuwul kon suñu njëriñ amul maanaa suñu njëriñ suñu ngóom kasaara la ngóom gi ñu am amuñ fenn fu ñu ko wéer kon ñu war a ñaan mais ni ñu ko déggee nii téere bi di ko feeñal mu doon loo xam ne lii ñu nit dinañ ko feeñal ci suñu dunda wone dégg moos Christ bi dekkale nañu yàlla barkeel te nangu suñuy ngërmande nangu suñuy tagas nangu suñu alléluia mu barkeel ñi nekk ci lopitaan yi barkeel ñi nekk ci kaso yi maayil tu mbaate janjambure ñeeke ñi nekk ci seen yi ñi nekk ci yoon ñi di tukki ndax fu ñoo dem ñu mun faa aagal jàmm yal na yàlla barkeel Gambia bi suñu réew dekkali ko ci yeneen yi nga xam ne mooy ñaawteef yi seytaane indi daaxal ñu seytaane fu sori may suñu réew fii jaama ak naataange ci surubaay bi ak doom ji ak tel mu selen amen chrétien yi sumay mbokk fi la tink waxtaan bi ba su neexee yàlla dimanche bu ñëw kaddu dunda gi eh, dina continuer eh, ni mu ko dee baaxoo di def saa yu nekk di leen isil li xew ci diocèse bi surtout man ni ñoo màggale suñuy hundred years si cathédrale ba su neexee yàlla dimanche buy ñëw yàlla leen yàlla may yiw ak barke mais leen lépp li nga xam ne moom ngeen soxla ndax dundee seen dund ba kenn chrétien nim gën a neexee yàlla ba su neexee yàlla dimanche bu ñëw yàlla leen yàlla defal jàmm Thank you. In Africa, there are more than 1,000 species of mammals.